li nga xam ne mooy aali këllëj gi te indi problème yëpp problème judiciaire foqati ay mandat arrêté ay jeunes par centaine benn mbir rek a ko waral mooy Macky président Macky Sall bëgg troisième mandat troisième mandat ce n'est pas possible li nga xam ne nag mooy taxawaay bi war a am muy l'ensemble des démocrates te defe naa ne am na waxtaan woo xam ne tàmbali na vraiment sous la maestria de monsieur le ministre d'État Habib si ànd ko nag ak tous les responsables yi toog fii ñu toog waxtaane ko ne ñun ñëpp war nañoo ànd doon benn tous les démocrates ndax vraiment constitution bi dafa leer nul ne peut faire plus de deux mandats